asalaamualeykum yéen téléspectateur u Mously TV man la soxna Awa Cheikh Soumaré fas yéene def ak yéen émission ñaari ay bés yu nekk ci weer wu ne ñuy waxtaan ci tem boo xamante ne tem bu soxal njaboot képp kuy waajur képp kuy jigéen thème boobu soxal na la muy vacances ak xale muy vacances ak tout tànk ci zaayir mu nekk loo xamante ne dañu gis ne jamonoy année scolaire bu école tëjee ñu nekk ci vacance xale yi dañuy yaakaar ne libre nañu dañuy yaakaar ne war nañoo mën a dem fu leen neex muy jigéen ka muy góor gi ñu di leen dig daje ba fileeg ñaari ay bés ci kàttanu yàlla ak mbaaxam barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa